borom tubaa nee na ku xam boromam du topp kudul dul boromam ku saggantam du topp lu bakkanam daal ni ñi xam yàlla dañuy dimbalante ci topp yàlla ak ragal yàlla ñi sàggan dañuy xëccoo ci mooy yàlla ak noonu